Uh, mbikum koom-koomu Kawlax ndàngaan léegi tey mu suqaliku del siwaat ndax seen port ba njiiti réew mi Macky Sall xamal na lancement ni ki démb wàq géej ga ngir bato ya mën a ñëw la Soleil yéene a kaay ñi ko xamal réewum Corée ñoo fas yéene amal liggéey bi ni mel andi nañ seen ponkalu maamu bato bu ànd ak leng bu gudd fas yéene wàq géej ga njiiti réew mi Macky sàll nag nee na li ma bëgg mooy Kawlax ndàngaan waat fa mu nekkoon ci koom-koom ci suqaliku ci naataange yéen kaay bi na njiiti réew mi Macky Sall nag démb teeru nañ ko teeru bu rëy askan wa yëpp a génn waaye responsable bi ñuy wax Mouhamed Ndiaye Rahma ambassadeur itinérant defati na ko gaañi mbooloo ma génn démb teeru président Macky Sall boo ko xaaje ñeenti xaaj ñett ya ak genn wàll Mouhamed Ndiaye Rahma la ñu àndal mobilisation bu kenn mës ta gis président Macky Sall ba mu ñëwee ba ca biir mbooloo ma gis Mouhamed Ndiaye Rahma dafa taxawaat oo ko ba mu ñëw mu saafuwante ak moom jaajëfal ko cortège ba daal di jàll Macky nag dina jàll mi ngi tey ci altine fa defar l'observateur ne Gàmbi bi la askan wa doon jooy léegi tey mu féete ginnaaw aa ah, yaaw seetal wàllu ger saaga wante xeex ba ci rayante ñu doon jàll ca bag ba ñoo seede kàddu yi ni mel nay leer li leer léegi nañ ba mel ni jant tusubaar mooy ne conseil constitutionnel joxe nañu seen liste bu mujj ci ñu war a bokk ci wote yi di ñëw juróom candidat la ñu enquête yéen a kaay ko xamal ne amul nag benn mbetteel juróom yañ joxe woon moom lañ dëggalaat muy Macky Sall Ousmane Sonko Idrissa Seck Madické Niang ak Issa Sall pur Malick Gakou Abdoul Mbaye yeneen ni ni mel ñoom article 122 bu code électoral bi moo leen sànk li tax tamit Khalifa Sall ak Karim Wade seen recours ya ñu gàntal ko enquête yéen a kaay leeral na ko laas yéen a kaay na ko fi mu toll nii juróomi nit ñooy xëccoo toogu bi jiite Sénégal Vox Populi ak Sud Quotidien ne ñoom juróom ñooñu Macky la Sonko Idi Madické Issa Sall loolu mooy liste définitive bu mujj mujj bi kon léegi leer na ne Khalifa Sall ak Karim Wade ñoom fori nañ gaa ñu écarté nañ leen de Vox Populi na ñoo bàyyi noonu mu sedd ndax waa COP25 danañu amal ndaje la ñuy jaar ñàkkante gaay gaañi waaye yéen a kaay bi na leen hee daf leen ndànk de ndakaaru njaay takk der ko fees dell fi mu nii ku dof dof la rek ñu rëq sa ndigg maître Amadou Sall ne xam nga lu ma bëgg ngeen xam wote moom du am Sénégal ndax ñi fa ñuy fonto cooy ba kenn ci jege ñaale Khalifa Sall na makki kay dana ko digaale ak ñun ba fu mu yem neex Seydou Gueye bu APR ne ku gémmiñam du nàcc du wax jàmm waaye li ma bëgg ngeen xam réew mi bu ngeen fi fekk turbine jàkkaarloog ñoom loolu da la def Walfadjri yéen a kaay ne waaye li am démb warta bett kenn miracle ci Khalifa Karim bokk xam ngeen ne mënta nekk Dakar Times na ko wax nga dëgg parce que wàllu candidat yi ñiy bokk ak ñu dul bokk Macky daal mooy tànn na ñii nañ bokk saaxo ko d'accord naa danañ bokk su ko defee nag réew mi nar a tàkk ndax lii ñu bëri séentu nañ ko njiitu jëwriñ Boun Abdallah Dionne waxoon na ne juróomi candidat ñooy am te moomu ji am kon ñii dañuy sant yoon rek yoon di def li ñu a kaay nee na nag waa PDS yi ña ngay tëkku xeex yaayu Khalifa Sall maire Awa Niang wax na ci yéene kaay bi yéene kaay bi di Le Quotidien ne moo nar a am ci wata yi Khalifa Karim fari neew mooy yéene kaay na ko juróom-ñaari attekat yi ñii tànn mbuxum ak tappale am na ñoo xam ne loolu lañ jàpp na moom lañ def la nar a def nag ñoom ku jégi tey ci ngoon mooy dajaloo waxtaan ci seen biir xool nan la ñuy xeexee l'observateur moo ñu ko xamal réew mi yéene kaay na yëf yi dafa mel ñàkkante doole ak doole mooy na buñ tax na sax am na ministre yu bëri fi mu toll ni fa ñoo daw Dakar di amal tournée ci Sénégal source ay yéen a kaay di ñu xamal lan moo tax recours yi ndax jafe-jafe yu fa am El Hadji Malick ne moom dafa bëgg a kalaame waat ñu xoolaat ay kayitam ngir mu bokk ndax waa conseil constitutionnel candidature Malick Gakou boobu lañ neenal na baaxut waaye bokku tëg bi El Hadji Malick Gakou nay leer laneen lu leer ba yegg ca naan ja moo ne bilan njiit ci wàllu koom-koomu Sénégal juróom-ñaari at yi mu ko jiite baaxut santut yàlla waxuma ko de wax ci Sud Quotidien nee na man Amérique laa nekk Sénégal du jàmm bor bi ñu bitim réew dafa bëri yoon moomut boppam te gis bu weesoo jàpp 2024 wàllu koom dana deltu ginnaaw ba jéggi dayo li jéggi dayo kay te ba léegi dégguñ procureur de la république wax ci mooy xibaar yu garaaw yi Ousmane Sonko di génnee jëm ci milliards yu bëri yu ay kilifa labaj toppale ko ci Sénégal aya Sonko tey ci enquête yéen kaay nee juróom-ñeent fukk ak ñeent milliards ma fi waxoon ci Mamour Diallo ak ñam a toppale ko léegi jël nañ ca ñeent fukk juróom benn ba séddoo ko ci seen biir procureur nag su ko leer na ubbi enquête ma jox ko firnde leer du moo topp Khalifa Sall ngir mu leeral alalu askan léegi na wax ci lii turbine yéen kaay ne Ousmane Sonko nee pare na ngir wax turu banque bi nga xam ne fa la gaañu xaalis ba direct info l'observateur yéen na ko dafa mel nag yow moom yaay jaxase ndax Ousmane Sonko li wax leer na nee na moom lañ toppale woon léegi nag jël nañ ca 46 milliards ko moom Mamour Diallo ak ay complice lekk ko te xam na banque bañ ko jëlee la des nag jëlaata guñ ko loolu la Sonko wax de la wax ñoom waa Jamra mooy ñaawlu nañu ubbite jumaa bañ doon amal ca géejawaay yàlla ak diine moo tax a jóg jumaa ja waaye ñoom ñu di ko ubbi mel ni ñuy meeting amal laneen lu ñaaw lu am ca sibi kotaan mooy ñaari xale ñoo faat ndeysaan ñàkk seen bakkan ci ak lakk le quotidien yéen a kaay ñi ko xamal li mu ñu xamal moom réew mi yéen a kaay mooy am na ab bu jigéen boo xam ne fa doon jaay boppam ay bandi jàpp ko tëddee ko ba para ko yëf yaa nga am ci diiwaanu sali ba tey yéen a kaay bi di ñu xamal na am na benn waay daal fa fiire jabaram njort na jabar ji fa xam keneen ko muy nekkal boolewut ca wax fa bàyyi ba jabar ji ñëw mu jël tournevis xoj ko jam ko ko ci doq ba jabar jaa nga ci diggante dund ak waa ji nag biñ ko jàppee tëj ko ci néeg bi mu xam na lim def ëpp na mu laal néeg ba jéem a xaru waaye taxul mu dee de waa ma ne doo dee noonu fa yomb sip sone yow lu la leer ngaa njortu lu ñaaw rek tax nga bëgg a sa jabar ji même la nga njortoon sax su amoon bu ko ci reyante fa ko mu dem nga seeti keneen jàmm na ñooy